monsieur le ministre maa ngi leen nuyu ku ci nekk turam ak santam ak les collaborateurs des ministres di beral nuyoo nag euh, suñu ganu bés bi muy Mamadou Diagne Fada mon frère Moustapha Ba maa ngi lay nuyu encore une fois de plus monsieur le ministre Diagne Fada maa ngi lay félicité ci sa nomination bi encore une fois waaye tamit di félicité sa département ci réalisation yu am am solo yi nga xam ne ñoo ngi koy def depuis bu président de la république Macky Sall ñëwee ba tey avec l'augmentation des fonds de concours qui sont passés de 12 milliards à 49 milliards, mais également avec la montée en puissance de la fonction publique locale. Mais plus précisément avec l'acte 3 de la décentralisation qui a des réformes importantes telles que la communalisation intégrale, l'érection des départements en collectivité territoriale. mais monsieur le ministre comme nu ñu koy waxee rek acte 3 de la décentralisation boobu noonu pour mu am objectif bi mu fixé woon en 2025 muy euh, des territoires viables compétitifs et porteurs de développement durable il faut que ñu dem ci phase 2 bi le plus rapidement possible loolu nag mooy ñu wax ci financement de la décentralisation monsieur le ministre décentralisation comme ni ko sama prédécesseur yi waxee mu ngi avancé ci Sénégal waaye le problème de financement pose un problème pour ça nag il faut une fiscalité locale plus forte mais également élargie au département plus forte ndax war nañ dooleel fiscalité locale loolu nag je m'adresse euh, au ministre des finances à la direction générale des impôts et domaines la fiscalité locale war ñu ko dénk un bureau c'est bien géré mais war nañ ko def par exemple structure bu koy géré war nañ ko def euh, war nañ ko en direction comme nu mu amee trésor structure bi nga xam ne mooy toppatoo affaire u collectivité territoriale mooy nuyu de passage celui qui le gère mon frère mi nga xam ne mu ngi ki toog maa ngi lay nuyu Amaro di la jaajëfal monsieur le ministre pour parler toujours de la du financement des collectivités territoriales ñoo ngi ñaar une augmentation des fonds de transfert conformément au texte de l'UEMOA qui ont prévu un transfert de 20 pour cent des taxes collectées gis nañ jéego yi ñuy def mais bëgg nañu yokk ko monsieur le ministre tamit ñoo ngi ñaan toujours la décentralisation du BCI ndax nag tabax classe tabax centre euh, centre de santé ak ay poste de santé wax dëgg yàlla war nañ ko dénk collectivité territoriale ndax nag sàmmkatu mbott moo xam bu ciy soox ñun ñoo gën a xam suñu gox yi ak fan nañu war a tabax suñu suñ classe suñu gox yi te bu suivi bi ci lay gën a assuré mais également le contenu local ci lay gën a assuré monsieur le ministre maa ngi ñaan une meilleure assistance des départements gannaaw bu ñàkkee fiscalité mais département yi tamit amuñu siège ñu ci ëpp nit ki baa nga ne naam nekk fi am na collectivité territoriale surtout ay département yoo xam ne ku ci mel ni Goudomp soo demee seen seen siège bi doy na waar trop département Koungheul ñoo ngi leen yónni huissier pour génne leen nous vivons des situations yu doy waar doy waar te yaakaar ñu kenn ku dul état pour ñu jàppale ñu monsieur le ministre une mooy ñu boole ñu ci yenn programme yi FERA PUDC PACASEN yooyu yëpp à ah, quand PACASEN rural kañ la effectif mais monsieur le ministre pour terminer maa ngi ñaan nga dooleel PNDL ndax nag ku ñu jàppale la comme tamit nañu war a dooleel les les associations faîtières ndax nag ñoo ngi joué association faîtière ñoo ngi joué rôle bu important di taxawu ñi nga xam ne suñ membres yi mais également on représente l'État à travers euh, le monde donc nous demandons une meilleure assistance jërëjëf ñoo ngi leen sant di leen gërëm